dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien enquête le témoin vox populi las les échos sud du quotidien yéenekaay yëpp xëy dikkal ñu ci visite bi nga xamante ni premier ministre bu Canada ma ngi koy amal ci réewum Sénégal ni ki démb moom ak njiit réew mi di président Macky Sall ba nuy jano ak taskatu xabaar yi Macky Sall wax na ko lu leer ci lu jëm ci mbirum borom ñaari tur yi maanaam mbirum góor jigéen ndax ki nga xam ne nag mooy premier ministre bu Canada di nag dafa bokk si ñi nga xamante ni daal dañuy dooleel wàllum góor jigéen ci àdduna bi waaye nag Macky Sall daan na koy tontu tontu yu saf sàpp waaye yu leer naññ ci yéen kaay gi di réew mi quotidien lam ko xamal nag mooy Sénégal dal maanaam du ñu fi nangu benn yoon di fi dagana la birum góor jigéen loole nag sunu société ci boppam moo ko nanguwul yéen kaay gi di Vox Populi mu ñu xamalaan ñu ni ki démb Macky Sall nag daan nay wane fulaam dëggantaan te nag bu ñu waxante dëgg fula mooy jaay Dakar waaye nag daat nay wane boppam ci kanamu premier ministre bu Canada daat na kay xamal nag fii ci Sénégal ak nguur jigéen mooma maanaam duñu ko fi daganal benn yoonu ndax nag suñu aada ci boppam dañu ko mayul waaye nag daan nañuy respecté ak ak yelleefu doomu aadama journal bi nee na Macky Sall ginnaaw bi mu tegee Obama ci ab àndam ni ki démb nag premier ministre bu Canada moom nag moo jël wàllam ci mbir mi yéen kaay gi di les Échos na en tout cas nag li ambade sa mooy Macky Sall démb nag ay kàddoom war nañu ko càmbaraat Macky Sall bi muy wax wolof li mu wax ci wolof maanaam bokkul ak li mu wax ci français maanaam ci wolof ji daal moom Macky Sall wax na ci lu leer ñi ne maanaam mbiru góor jigéen du ñu ko nangu benn yoon ci Sénégal te du am lenn loo xamante ni dañu ko ci masla waaye nag ci français gi maanaam foofee nag am na lu ci lënd maanaam foofee Macky Sall dafa nooy loola yéen a kaay gi de la témoigner mu ñu xamal lan ñu ki nga xamante ni nag mooy premier ministre bu Canada daan nay firndeel ne Canada ñoom nag danañu fas yéene jàppale Sénégal Sénégal ci lu jëm ci conseil de sécurité des nations unies yéen i kaay gii di la turbine mu ñu xamal naan ñu nag nañu wax ci français yi nga xamante ni ba léegi ni nag maanaam dañoo coloniser Sénégal ndax mën nañoo wax ne lu baax ci réew mi lépp français yi la ñu ko daal di jox ndax nag SGBS di CFAO di Total di Sénac di Auchan di Canal Plus di Orange Money et cetera ak yeneen yoo xamante ni daal ma ngi ci réew mi yëpp nag maanaam français yi ñoom ñoo ko moom a bi na jàpp ne français yi daal bu ñu waxante dëgg ba léegi ni daal maanaam ñoo ngi coloniser Sénégal journal bi mu ñu xamal lan ñu Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xamante ni moom lañ dénk kopparu réew mi ak Amadou Hott mi ñu dénk wàllum budget ñoom ñaar nag seen diggante am na ay ñëgg-ñëgg lenn lu ko lu dul mbirum koppar yéen kaay gi de la témoigné daal di xëy nag ci colonel Abdourahmane Kébé mi nga xamante ni ni ki démb nag da doon tukki waaye nag ba mu demee ca aéroport international Blaise Diagne dañu ko daal di dëpp nangu li nga xamante ni mooy ab passeport am moom nag ba léegi ni daal njaw ma ngi wéy di desu xamin ci ay mbiram yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu magum àttekat yi maanaam di doyen des juges ni ki démb dafa dóor ay mandaa de dépôt ba doyal ndax ki nga xam ne mooy Mouhamadou Habib Gueye mi nga xamante ni moom la ñuy tuumal lu jëm ci maanaam saaye saaye ay xale ca Wakaam démb dóor nañu ko am mandat dépôt Olivier Sylvain mi nga xamante ni moom tim dañu koy tuumal ne da doon tëddee ay xale ci nag centre formation bii di Dakar sacré moom tim daan nañu koy dóor ab mandat de dépôt journal bi nee na tamit k Faye mi nga xam ne mooy manager Viviane moom ak ñeneen xam ne dañu leen di tuumaal ci lu jëm ci trafic visa dóor nañ leen démb ay mandat de dépôt journal bi nee na en tout cas li am ba des démb mandat yi bëri woon na loola enquête yéen kaay ñu fekk fo Oliver Sylvain mi nga xam ne ma ngi ci kasu bi moom nag nee na daal maanaam tëddeewul xale yi benn yoon waaye nag da leen doon defal ay massage journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamalaan ñu xale yi nag maanaam ci réew mi xale yi ci boppam gone yi dañoo mujjee nekk nag ay prisonnier ndax nag dañu leen di fitnaal di leen di médital di leen di saay saaye di leen di tëddee ñenn ñi sax ñu leen di dóor ba ray leen te nag gis nañ ne jamono ji mbir mi daat nay tar loola ba tey ci biir yéen kaay gi ci xët mu njëkk mi ñu fekk fi maam booy jaawoo moom nag la mu xamle maanaam nag ci réew mi nga xamante ni foo laal dafay metti nee na nag ak lajjite ci boppam moo ci am ñoom daal fa ñu leen doon séentu dañu faa desee yegg daan nay wax tamit ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Macky ba pare am ay ambition politique nee na ñooñu nañu wane seen bopp comme ni nga xam ne moom la ko Macky Sall defee woon maanaam ci atum 2008 réew mi quotidien mu ñu xamal ñu Lamine Koyata mi nga xam ne moom la ne police yi ñoo ko rey ca diwaanu Fatick loole nag autopsie bi wane wu ko yéen kaay gi nee na autopsie bi nag li mu wane mooy mort naturelle waaye nag laas yéen kaay nee na njabootug Lamine Koité ñoom nag nanguwuñu loolu benn yoon ndax nee nañu loolu scandale bu rëy la yéen kaay gi de Libération mu xëy di ñu xamalaan ñu lieutenant Serigne Moustapha Sané mi nga xamante ni maanaam moom lañ njort ne moo rayoon étudiant bi di Fallou Sène ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ni ki nag daan nañu koy déglu ca mbir ma yéen kaay gi di record mu ñu ñu diggante du di Koulibaly ak ñi nga xam na ñooy waa Naples seen diggante nag jamono ji dafa mel ni am na ay lees waxula ndax Koulibaly jamono ji nag maanaam yaakaar ji Naples amoon ci mooma maanaam di ko football saa su nekk gis nañ ne jamono ji loolee daat nay dakk match bi amoon diggante Naples ak Inter Kalidou Koulibaly moo damm ba journal bi di sunu lamb mu ñu xam lañu nag combat bi ñu lam-lamee diggante Balla Gaye 2 ak booy ñaa 2 staff Boy Niang nag ñoom li ñuy laaj mooy quatre-vingt-dix ngir nag sëgg bëre ndax ñoom nee nañu du ñu sacrifier benn yoon Booy Ñaa